européenne financé nañu ko ñu ànd ci ak ville de Guédiawaye ak commune de Pikine Nord di liggéey ci sensibiliser population surtout essentiellement ci li nga xam ne mooy taxawaay bi ñu war a am jëm ci changement climatique ak effet mu war a mën a jur donc loolu moom moo ñu indi woon fii tey jii ñu doon def nag benn séance de compétition avec les élèves des collèges yi nga xam ne ñoom laa fi c'est-à-dire que affaire changement climatique moom dafa yemul rek Sénégal fépp la ci àdduna donc du kenn koo xamante ne que dafay ñëw di la dal di bàyyi ñu ci des ñëpp lay dal moo tax ñëpp aussi ñu ñoo war a xam loolu jéem a am ay comportement yoo xam ne war nañ ko changer waaye jéem a aussi commencer fàggu di jéem a fexe it mën a am résilience bu ñuy wax noonu mën a am taxawaay boo xam ne dina tax ñu gën a mun a dëkku li nga xamante ne moom moo doon effet